كنتم تكفرون gannaaw jéye ji amoon ci Nouvelle-Zélande ñu bari ci àdduna naqarlu ko naqar googu wër nag ba daj fii ci Sénégal Alliance de musulmans di kuréel gu ëmb ay jullit ñoom itam yëkkati nañ ci ay kàddu. fekk ay nit ñoo xam ne ñu sax bantu bale nekk ci barabu jaamu yàlla ñu fekk leen fa boom leen niñ leen boomee ci condition yi mu ko defee filme ko daanaka lu mat fukki minutes ak juróom. te dara dogu ko waaye nag en tant que nit rek ñoo ngi naqarlu loolu di ko condamné ci turu sénégalais yëpp. ci loolu it ñoo ngi naqarlu traitement bi nga xam ni médias occidentaux yi traité nañ ko xew-xew bii. Ababacar Mboup kenn la ci kuréel gi ci baatam xamle na ni bu ñu dee wax ñàkk liberté ci àdduna bi jullit ñi lañu koy gën a jagleel ba tax am na ay réew jaamu fa yàlla metti na loolu. ndax mbokk yi. seetlu nañu àdduna joo xam ni kenn ku amati liberté jaamu sa boroom ak na nga ko dégge loolu amatul. ci fàttali ay fan ci ginnaaw benn samba boy duggoon na ci ñaari jàkka ci réew Nouvelle-Zélande dóor fa ay sox ca gannaaw ga nag lu toll ci juróom fukki nit ñàkk nañu ci seen bakkan jëf gi nag ñëpp ñaawlu ko waaye it mu jaaree fa tiital ñu bari ba sax ci yenn ci ay réew yokk nañu kaaraange bu baax ci booru jàkk yi.